bu metti bu dal ci askanu lislaam dal ci askanu maam Maharam Mbàkke jaar ca sëriñ maam Balla Aysa wàcc ci sëriñ Mor Anta Sali wàcc ci sëriñ Tuubaa Ahmad Bamba Xaadim Rasuul wàcc ci maam Cerno Ibra Faati wàcc ci maam Cheikh Anta Mbàkke wàcc ci sëriñ Afiya wàcc ci sëriñ Masamba mii caatum maam Mor Anta Sali doomam ju tedd ju baax ju matale te mat sëkk ca lam doon ñu koy wax Cheikh Abdoul Baaxe Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon xalifa ma Massamba suñu borom jëlee na ko fi tey ci suba ci alxamis ji yamook le 7 novembre 2013 mu wutu woon fa magam ju baax ji Cheikh Salihu ma Massamba Cheikh Salihu wuti woon fi Serigne Mahmoudan mu sëriñ ma sàmba mu wutu fi sëriñ Modou May mi nga xam ne moo jëmm ji fi jóge tey ñoo bokk waajuru góor bokk waajuru jigéen mu nekk jëmm ju baax ju tedd ju matta matale ci fànn yu baax yépp booy wax lu baax ba agsi ci moom danga nga mën a lim li nga xam ne baax leen na ko lépp ndax looloot waajuram wu tedd wa sëriñ Touba Cheikh Ahmad bàmba da ko waxoon ne képp ku sant Mbàkke sama mbokk nga waaye nag kenn ku ci ne la nga baaxle laa bokk ak yow kon mu mel ne bokk naag sëriñ ab Abdou Baaxe ci fànn yëpp fànn yëpp ndax sëriñ Abdou Baaxe képp ku dégg sëriñ Masamba ci tabe dégg ko ci mën a teral gan dégg ko ci alxuraan ja dégg ko ci xaside ya dégg ko ci fànn yu baax yi ko sëriñ Touba gërëme woon yëpp da nga mën a jàpp ci sëriñ Abdou Baaxe ne mooy sëriñ Masamba mbakke mi nga xam ne tey jii mooy caatu Mamor Anta mu tooge ci ak xilaafam wutu ci Cheikh Salihu toog ci toogin wu rafet amoon ak jàmm ñëpp seqoon ak jàmm ñépp maandu téyewoon ak njabootam yar leen ci diine jàngal leen alxuraan jàngal leen xam-xam ba tey kenn ku ci nekk tey lu mu tuuti tuuti ci ay at la mu def ca moom ci xam-xam dem na ba jéggi dayoo ba àddina sépp mën koo seere jëmm jooju nag dëddu noppalu wuy ji suñu boroom waaye nag fa mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jógee yàlla na ko waajuram wu tedd wa teeru ma Massamba Mbacke jël ko teg ko ci loxool magam ju tedd ja Cheikh Ahmad Bamba mi nga xam ne tey moo waral Mbacke Mbacke ñëpp jox leen cër ngir ak njàmbaaram ak euh, xam-xamam ak bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu jël ko teg ko ca loxol Maam Mor Anta may seen waajur mu teg ko ci loxol Maam Balla Aysa mi nga xam ne moo doon caatu Maam Mor mu teg ko ci loxol ka nga xamante ne si mooy Maam Maharam Mbàkke mu teg ko ci loxol Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu teg ko ci loxol suñu borom mu yóbbu ko ca àjjanay firdawsi muy àjjana ya gën a kawe te yàlla may ko njaboot goo xam ne dafiy yàgg te barkeel ni nga xam ne ak dundam ni la barkeeloon ndax kat nit bu fi jógee la nga xam ne mooy ndonoom mooy sadaxa ya wala jàkka jum fi def wala juma wala gasub teen wala doom ju koy jàngal alxuraan ñu gis na nag loolu fa tabaraka wa taala Cheikh Abdoul Baaxi Mbàkke matale woon na ko ci fànn yépp fii nga xam ne fi la dëkke nag fa la magam ju tedd ja dëkkoon di sëriñ Modou Mbay mi nga xam ne ñoo bokk lépp foofu moo doon kër ma Massamba Mbacke ci boppam mu jaboote woon ko moo sëriñ moo Modou May mi ko fi jëkk a wuutu ci xalifa suñu borom dogal nag Cheikh Abdou Bakhi moomu wàccub liggéey tey ci le 7 novembre 2013 fële ca Dakar euh, suñu borom dogal nag mu yemoog màggaluk Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mi nga xam ne moo nekkoon a imaamal imaam imaamu yépp moom it nekkoon fi ba suñu borom dogal ñu bokk ci liñ koy fàttalikoo tey yàlla na suñu borom taas ko ci barkeb Cheikh Abdoul Khadir Mbacke taas ko ci barkeb képp ku baax kuy wax sa doon laa ilaha illallah ñoo ngi koy siyaar mbépp képp ku bokk ci maam maharam la ko dale ci Cheikh Abdoul Khadir Jilaani bi nga xam ne waajuram wa ci boppam di sëñ ma sàmba di waajuram wa ca Mamour Anta Sali ca tarixa boobu lañu nekkoon ba sëriñ Touba feeñ doon la mu war a doon suñ borom wan ko ko mu yoonu murit ñi ngi koy siyaare képp koo xam ne sii ci waa kër Sidi El Hadj Malick si nga bokk di ko siyaar ummal islam bépp waa kër baay Laay waa kër Baye Niass waa Kuntiya ñëpp fépp fu jullit mën di nekk ñoo ngi la koy siyaar di ñaan nag képp ku julli julli farata ba noppi na nga jàng fukki lixlaas ak ñaar tëjee ko salaatu ala nabi yéene yool bi Seydina Muhammad mi nga xam ne moom mooy ngën ji mbindeef yéene ko ka nga xam ne moo doon liggéeykatam ba di maamam ja di Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yéene ko it ki nga xam ne mooy Cheikh ma Samba ci xasida ya yéene ko Cheikh Abdoul Baaxi mii nga xam ne tey jii moonu dëddu yàlla na ko fi yàlla dolli ay leer fa mu jëm gënal ko jóge kii nga xam ne it moo ko fi wuutu di Serigne Moustapha moom Serigne ma Samba ak Serigne maamoor Mbakke ak njabootuk Serigne Mahmoudan gépp ak njabootuk moo du faati Xari ak njabootuk Serigne Modou May muy Serigne Cheikh Kaal ak njabootu Cheikh Abdou Salaam ñoom ñëpp ñu ngi leen di eh, siyaar jëmm ju tedd ji nga xam ne tey dëddu na fi ci weeru muharram bi yemook le 7 novembre 2013 bépp mbokk bu nekk ci biir Italie fépp fu waay nekk ci Europe ñu ngi la koy siyaar tey jot lil nu képp koo xamante ne si mën ngaa joxe ak ñaan nga joxe ko eh, ngir jëmmi Serigne Touba wasalaatu wasalaamu ala asrafil muslimin bisimilah barke Sëñ Tuubaa